وجعلنا من الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون خمغا برب تبارك وتعالى ديغي واخني لو يم ديف سي كاو سوخو ام بو bi ma koy créé ci ndox laa ko ñaar créé sax boo ko doon jëmbat bëgg mu dox danga koy gas pax def ko ci tooyam doomu aadama sax ndox moo sos bàyyi gàncax tout et tout du ngeen mën a gis ci kaw suuf ndox moo ko créé yàlla ko ku ñu laaj yàlla ban sirru nga créé mm-hmm. affaire ci biir ndox mm-hmm. mu ne mu ne tur bi ay xay ci laa ko defee um na seen xay ñu foog tur bi indi mais soo créé loolu ba pare nan lay def yaquum loolu lay daa taxaw say xaar yi nekkate xayuum mooy yaquum seetlu ko fi ne xayuum yaa ngi nekk ci diggante xaaf gi ak waa gi moom nga yóbbu ca kanam yëg ngay jël teg fee ci kanam bo dugalee yaay gi bu ci xaar di yaxo ngay wax ya moy la taxaw lu ne yaxoomu da ko taxaw mm-hmm. kon ya yawma taqumu samaau wal ardu bi amri gis ko summa ida daakum da'watan min al ardi ida antum taqumu gis ko ma su borom di créé asamaan juróom-ñaar. Mm-hmm. suuf si juróom-ñaar. Mm-hmm. baat bi baatu xëyum. xëyum moom la jël. yaa gi nga defoon ci mm-hmm. moom la fa aj ko ci kaw. taxawal ko ci kon xëyum ci la yàlla taxawal lépp ci kaw suuf. Ah, xëy ci lépp ci kaw suuf. borom rek wax ci alxam. ñaari tur yooyu boo leen seetee de chiffre dafay jox cent soixante quatorze. gis nga dañ ci ñëw ci kanam. lan mooy bu ngeen jëloon seen kayit ak seen bit mm-hmm. wala seen machine ak calcul mm-hmm. dañoo wax ne tur wi di yaa xayu mm-hmm. yaa xayu képp ku koy sikkar jaa yor ismail axsam centième tur yàlla bi ñuy seet ndeke moom bi ci jëkk mooy doo faatu mukk ak lu loot maanaam rek ba mën a tooju fi nga nekk sonn bañ dina raxal nga doo ko def kuy sikkar yaa doo ko def beneen ba ci des it mooy njaboot goo am yow li koy wér. bu ñu doon fukk ne juróom-ñaar daañu réussir parce que yàqu mu jee tax. ba ci moom ku koy jëfandikoo rek rek doo daw kattan. yàqu mu. te toujours seer day tàng day tàng. euro boo paree wax ni ku koy jëfandikoo fokk nga dem màggatul mu karam xanaa ku ñàkk dem màgg. te dinga si yaar mi dina. moom xëy xëy mm-hmm. te dégg tegu la. xam nga lu tax. Mm-hmm. soo bindoon Makka. Mm-hmm. la lay jox. Makka. mim bi 40 la. kaaf gi wela. ah yim bi 5 65. 65 nga bind Medina. mim bi 40 la. boo boolee noonu nga ak yaage 50 nga am muy 90. nga teg ci deel gi. ak beneen 5 bi yes. da nga am 109. 109. 109 plus 65. nga am 165 tonsus. màkkatul mu karam. mbir mm-hmm. natu mu naram. Mm-hmm. soo leen boolee 174 kay am. te 174 boo seetee xayu 18 la. Mm-hmm. xëyoo mu nekk 156. soo boolee 156 ak 18 174 kay am. 174 moo tax boo dee sikkartu bi yaa xayu. yaa xëyoo mu même ci nombre boobu say fokk yàlla ubbi la. dégg nga. te it fokk di nga dem Makkatul Mukarram di ko siyaare si dund bala ngaa faatu. kon tudd moo lii. ci Makka 65. xayoomu moo la jox. 156. Mhm. 156 euh, mhm. euh, plus 18. Mhm. nga am 174. moo jàpp Makka te moo jàpp Medina. ak yu bëree bëree bëree ci jamono bu ne ci ci ci yaa ngi yaa ngi yaa ngi siyaare Makkatul Mukarram te yaa ngi si yaay mat bi mun a war te si jëmm jaaxal laa wax saa di nga aj di nga mos a aj waaw fokk yàlla may la xiiwal ba nga tiim na su laa def mm-hmm. wax naa la moom la yàlla bind lépp mm-hmm. moom la taxawal lépp mm-hmm. kon toujours yaa ngi ci yooyu lu dee si mooy ni ñokket nag dem see seet góor yàlla yi xam nañ loolu yow rasulullah sax dañ ko laaj ismulaay axsan mu ne huwa ayul xëy lan mooy ismulaay axsan dëgg dëgg dëgg mu ne mooy ayul xëy parce que boo seetee mm-hmm. su ma jëloon ismu teg ko mm-hmm. xam nga am na ñu bari wax yaa xayu yaa xayu mm-hmm. waaye wax yaa allah deux cent quarante lay jox deux cent quarante ñaari téeméer ñeent fukk loolu ngay gis noonu kooku gis naa ci benn téere bu ñu wax ni ku ko def maanaam vingt et si simili ñaar fukki semaine ak benn. waaw kay ñu bind sa tur ci fi ñuy bind wàllu yi nga loolu nekk lu ci am. chaque le matin. Mm-hmm. ak chaque le soir. Mm-hmm. yaa xayu yaa allah ya xayu yaa xayu. Mm-hmm. ak rëy. te yaa allah. yow képp yaa yàlla. yaa xayu. ñëpp yaa leen bind. yaa xayum. loo amee tànk taxaw yaa ko doxal. nga nga sàlloo ko rek ba faaw. Mm-hmm. loo bëgg suñu borom dana ko defal. Mm-hmm. Mm-hmm. la ay xayoom soo dindee boobu mooy <laughs> loolu <laughs> siis boobu mooy penk sawu day joor càmm kaw suuf mhm. lu des mhm. ban porte moo desati dara desul mhm. benn desul gis nga ko waxanatil wujjoo andi na lu ko fële ca biir gis nga walla yahudu woo ay lu tudd yëpp waaw gi ne ngay ngay gis mooy mooy daqee moom waaw waaw siis waaw moo fa nekk siis noonu la mhm. moo tax am solo. Mhm. wala yu nit waga. wala yu nit wasiya. wasiya moom waga wala yow du xasif ma waga. waga ñu woon ariyu azim waga. waga maanaam ba wax ji bu ba bu ci bi lay te gis nga siis bi. Mhm. ba ci 66 ñaari ñaari ñaari la Allah. di Allah Allah 66 ñaari siis la ba tey 6 6 mooy wax. ci bu gisoo ko boo demee ci allah ayub xëyum dafay nekk dix lettres waaw alaa bi quatre la ayub deux la nga am six xëyum jox la quatre dafay nekk dix nga ko waaw kan wal fasil wala yàlla xasil mu tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick ci ñoom fukki guddi yooyu waxoon nga xam ne moom lay daw yi ne ma xasooraa la ñii ne fële ca mun naa la bokk mais le dixième jour ba nga xam ni suñu borom dafa wax ne ku fexe ba comprendre xam la ci ne loo wax ma def mu jox la fukki ay fukki araf yooyu gis nga ko soo ñëwee ci alif lam mim allahu la ilaha illa huwa la yulxam mu jox la 17 loolu garaaw 17 maanaam boo boole woon tey ñaar naa koy suba ñeent rakkay tisbaar ñeent rakkay takkusaan ñett yu timis ak ñeent yu géej 17 rakkaa la 27 27 waaw kay gis nga ko moom moom boo ñëwee boo ko boolee ak faati yi mm-hmm. ba tey noonu la lay jox mm-hmm. fii da ngay am li tax ñu ni mm-hmm. buñ doon def day day datu xatar yi ñi gën a war di ko wiir ci ñaar fan ak juróom-ñaar waxu naa keroog daytu xatar neuf yoon na ko lii laa fi tudd soo boolee neuf fois trois 27 la lay jox mu ngi nii jox la ko. waxoon nga ni muy xëytal weer. muy xëytal weer mu jox la alif lam allahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyuum mm-hmm. mu jox la 27eem suur. Mm-hmm. ci weer bu ne. Mm-hmm. pour weer war a xëy. boo ko gisaat muy weer daa dee. Ah. boo ko seetlee moom mii allahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyuum mooy 484. soo seetlee allahu hayyul qayyuum mooy 240. boo seetlee yaa hayyu yaa qayyuum mooy 174. boo ci jàpp bu ne mu yóbbu la ci yàlla defal li nga doon. parce que loolu. ba ci allahu akbar maliku ay xëyoo. moom la ñuy andi. kon. yaa xëyu yaa xëyoonu. sëñ xaadim. mooy secret boo xam ne ku ko jàpp jàpp nga yàlla. te au lieu kon li ma waxoon léegi. nga nekk fépp fépp yu ngi nekk ci yow loo nekk. lépp dox. boo ko comprendre est kon gis naa ak sax bu mag. bi comme ni nga ko waxee nii rek. léegi saa nga ne yéen fonkoon na ko lool te te te daan ko santaane nee nañu xar yu bari sax moom moom la daan sikkar waaw ba suñu borom di ko tëbb kàttan di ko ci may na waaw yaa yaaku yu di raxmatika astari farata yi ñëw na ay yoonu yoonu yoon ci ci ko di ko sikkar di ñëw kàttan na la mm-hmm. ci lépp nag mm-hmm. dangay wér ak moom mm-hmm. nga jamono yooyu si gannaaw am na benn kilifa bu koy laajtee ñi nga xam ne dañuy yor kër beeg xaw ca néew doole. Hmm. fi ne moom mi boo ko jëlee. Hmm. ayu xayoom hmm. xawiyu matiinu moo aji kër ñoom ñeent Ismaïla Assi parce que dafa léegi. xay xayum xaw yu matin. waaw ay xayum xaw gis nga am na lim bu ñuy wax. 360 xam nga bu dee ci atu tubaab bi ñu defee seen cent 365 jours la ñuy wax mais dañoo calculer toujours 29 31 mais su dee ci weeru biir du am 365 ci weeru jant 360 lay moom la ñuy wax sasul sin soo ak sa ak sa saison multiplié par 4 moo lay jox matasun matasun 1440 1440 waaw. nga xam boobu. Ah. ah wala keneen wala keneen rek wala sa gars yi waaw ñoom. est-ce hmm? ah. nga boo dee ci bi da ngay fekk maa ngi gisoon terrasse bu ànd ak suñu suñu borom di wax ni. Hmm. yahabu liman ولله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناسا أو يزوجهم ذكرانا وإناسا ويجعل من يشاء حقيما إنه عليم خبير يلا يا دفع نون لكم سمان نيخي yéen ñëpp ngeen di am ak seeni soxna hmm. te lu ngeen jur ma def ko ci yéen hmm. bi nekkul ci yéen hmm. yéex bu li man yi saaw inaasa su ma neexee ngeen di nekk ak ñoom lu ngeen jur ma def ko boobu waaw yu saw ji fum su ma neexee ngeen di sonn lu bare bu ngeen jur dara yooyu caaw li man yi saaw xaqi ba kon kon kon kon kon ñun ñun yàlla duñ ko mën. suñu yoon xam nga ko bu suñu problème bi ma jaar. ki bëgg doom te nu mu tëddee. kooku nag nee boo indi problème. tey ko bëgg ci yéen nga def yaar ci yoon wi ñuy yaar wuti kenn te bàyyi ba ma jural la. bu ma tontu ko lam yërit. yàlla dugg. dégg nga dama ne mu jural la la am. yow. suñu borom def ci yow keneen bi tax nga ñëw. gis nga ko. su ko defee bàyyi la nga yor ndox mu baree bari bëgg a roosi. te mm-hmm. mu tool yoo ko def. Mm-hmm. wala nga roose ba nag mu jox la tool yu buy yoo xam ne sax. gis nga loolu. Mm-hmm. ok day ñëw fii. moo tax ay ñun xëyum xaw yu matin boobu. maanaam soo xamoon secret fi di ko liggéeyee fi ne yow suñu xarit. kenn bëgg kenn wax daa bëgg am soxna wala daa bëgg njaboot wala doom yu góor wala doom yu jigéen yàlla wax fii ci aay. يحب لمن يشاء إناثا ويحب لمن يشاء ذكورا ذكورا gis nga gars yi dem ba ñu ñu taamul seen bopp ci barke alxuraan. Mm-hmm. ni man doomu góor gi laa bëgg. alxuraan na yaa bu li ma ne mm-hmm. sax inasa mm-hmm. su fekkee ku bëgg doomu jigéen la ah haakadir ah, bi nekk ci yaa bu li ma ne sax. moom la ñuy ngànnal. def ci. aas daa bëgg doom ju jigéen waaye xam li ma ne saa sukora ñu gëmmal ko duñ fa def dara loolu leneen la doo jur jigéen day doon ci barka alxuraan nga ne soxla wooyu jigéen yi góor nga bëgg mun na ko akir ah, ba nga réyaloon fële ca jigéen ji gëmmal ko su waaye su fekkee da nga bëgg mu menacé wu nag. ay seex ubbil ñaar yëpp. waaw a kuraan ba inaasa. loo defoon loolu ba pare. Mm-hmm. fekk liggéey nga ay xëyoon mu xaw yu matin bi. kon sëñ ba tey aay bi kon xanaa day kii ñuy def plan yi waaye. Euh, dañoo comprendre. Euh, waaye taxal ba ni saa wax xaqiima kon. waaw kooku xanaa xam xam nga seen sa xaqiima. def ko noonu plan bi. Mm-hmm. am doom. mais jaru ko ko. Mm-hmm. mënoon ngaa jël bii rek. <laughs> xaar xaar bi nga nga tëj ko. xëy nga tëj ko xàqi ba nga ubbi ko rek dugal ci diw day daw ba ba ba ngoon jot te du verser dara xam nga taxi buy daw bu weer dee te doo verser. Mhm. wala lépp gi ci. foofu moo ci gaaw mooy xàqi ban ji mhm. foofu la waroon mhm. kon. yaa ngi ci ismaila axsan dañoo taataaw. ba dugg ci njabootu kër. waaye kon suñu xaar yi. yaa xayu. yaa xayoon. ci ke koy sikkar. te boole ko teewlu ko xam nga suñu jox la wax ni wér. est mm-hmm. mm-hmm. hmm? mm-hmm. xam nga bi yées kurus. mooy bëgg di tudd yàlla wala lu ne sa xel na ca. bi yées ci kurus di tudd yàlla wala fu ne sa bët ne fa. lii sécurité tudd yàlla ba ko wax nga tontu ndekatoon kon yow sikkarkat bi da war a dem ci place yu wéet même bu dee am public ñëpp a ngi ci tam beru ne jublul penku baggal say su say tànk bi tiwut même bu dee ci kaw benn temps boo xam ne ngay concentré wu ci si tur yàlla bëggee yàlla wuy hmm. hmm. boo ko defee diir bu gàtt gis nga ni fulóor bi toje daa garaat noonu la doomu aadama buy tudd yàlla di def ndox mu commencé ball xol bi tooy wax la ni yaa allah waxin na yaa xayu bi yaa xayu même bu dee beneen tur moo ëpp doole mart boo dóor ci dëkk ci sa diggante ak sa borom mm. salaam bi mooy mm. mart bi ngay tudd tur yi yalla muy dik bi ngay fop ya allah ya allah te teewlu ko ni martu dal ci dik non la sa kàddu gi dal ci noppi sa borom loolu zikrullahi akbar di yalla dafa rëy diir bu kat bu ne da nga bonoon di nga bax su ne da nga lëndamoon di nga leer su ne da nga ñàkkoon di nga am su ne lu sawara war nga dem aljana parce que yalla day toj dindi bakkar yep bu bis di nga moom kon bu tuddu yalla da ngay teew waye mun waxu ñu da ngay sikkar ba noppi toog ci biir jataayu waxtaanukaay lu waaye wax nga sànni ci ban mu répété lu ci. Mm. di def loolu ndax moom bisimilah bisimilah dem benn waay bu koy bu toog ko toogee naa waay bisimilah ma dem bisimilah dem saa waay kañ nga ñëw doo am dara booy tudd yàlla ngay teew moom laa toujours sama mbokk taalibe yi saa yu jant soo beru ji leen ngeen def nangam te bu ngeen yeewoo ngeen def nangam mm. te heure bi ñu koy def nga teewu mm. diir bu kat luñ la woon ci guddi dëgg la yàlla bu la woon noonu lañ ko war a war a sikkar waaye tur bu rëy moom lañ andi tey. Mm-hmm. yaa xëyu yaa xëyoon. ah. 174. lim la ca. 240. Mm-hmm. Mm-hmm. lim la ca. 594. lim la ca. ah. 484 484. lim la ca. boo ci jàpp bu ne li nga bëgg suñu borom def ko ci am. macha allah. is naa la déggee nga ne xëy na xëy ba tey mooy am waaru duniyaa ak. waaw boo bindee am waaru duniyaa. alal aduna alal ay compte bancaire moom la jàpp amoon waaw même bi 40 lam bi 30 70 soo boolee waaw gii ak liir gee seet la jox muy nga am 77 boo liggéeyee dunia 31 ak 4 da ngeen 35 waaw 61 boo boolee boo leen adapté yëpp 174 lay jox muy am wàllu dunia alal ak mu yaax yi yaax ku bëgg alal moo ci gën a noonu la dem. loolu ne xam nga wërsëg. ak taw. suñu borom ministre bi yor wàllu agriculture la ko jox. mu xam nga mooy Mikaayil. Mm-hmm. wàllu wërsëg bi. Mm-hmm. mooy wàllu taw bi. Mm-hmm. nga gis rab bi xab lii maalan jasila bi xaqi Mikaayil. soo ko seetloo juróom-ñeenti ismu la.

eh capitalisme bi yëpp moom la ñu yore. richesse yëpp moom la ñu yore. ah yi. moom la ñu te kuñ defal nag doo daan. da ngay dem xayum gee tax. waaw xayum gee tax. Mm-hmm. dégg nga xay xayum. ndekete mooy yàquwum. mooy yàquwum. Mm-hmm. yaa xayu yaa xayum. Mm-hmm. yaa xayu yaa taxawum rek eh. loolu tax du am doole. kon nag loolu mooy li nga xam ni. ñu doon laaj tey secret boobu. te yii nag. bokkut ak talsam yi. yooyu kenn ko laal yéen am na yoo xam ne ko jaar foofu ñoom seen xaalis ñoom ñii gars yi dañuy jaar di ñoo dem seen yoon xam naa da ngeen ko poñe yéen après sa xarit bi ndeysaan xam naa bu ñu noppee ñëw ñu naan la ko. waaw ndeysaan ñoom soxna Thiaba. est-ce que nekk suñu xarit dafa maa neex. ndeysaan ah ak ak ñu bëree bëree bëri ndeysaan. ku ñuy wax ku ñuy wax Moustapha Ngom depuis Bargamo. Mm-hmm. Ah? Mm-hmm. mi ngi wax ci yow lu nekk. ndeysaan ndeysaan. laaj na dégg loolu ñoom waa ji waa ji waa ji zone tali bi nekk bitim réew tamit dañ cëpp Sénégal buuf sa kanam. ndeysaan nu mu tuddati sax. te mm-hmm. ñu doon Abdou Sall. jàmm yaa xayu yaa xayum mm-hmm. kenn mën laa mun toog si mm-hmm. ci gën a yéeme ci ci jàngat bi ma def sànq maanaam bi nga fi fi ay kursi yu. laa taaxusuhu sunnatun. foo boobu day yow ci xayu xayu. lahu xayu xayu. من ذا الذي حي خير يعلم حي خير ولا يحيطون من حي خير وسع كرسيه من حي خير ولا يؤده حسن من حي خير وهو من حي خير الحري العظيم ما نفيرني لا مصدق كما ما نعرف نكون ما نعرف كرسيه دائما عبد الله جمع في كارانجي ورسجت لك بوب بتاعي لكن تبود بيب حي خير ما نحي خير حي خير ولا حي خير ولا liñ fi tudd yëpp ci ay matière moom la yàlla wax nañu ci bëri ah loo xam ne ayum xëyum hmm. yaxlam hmm. maa ay diihim wa maa xalfahum hmm. loolu doyul ci ayum xëyum dañuy kóob wala kanam ak ak koy sikkan wala yu ngi tonne bi seen him ilaa masa yow li nga xam ku dul yàlla mu ko xam kenn du la wut ci dara ayul xayoon ñàkk tëddik nga wax sax. waaw ayul xayoon moom day wasiha loolu. Mm-hmm. moom moom ayul xayoon moom ay mi nga xam mooy dundal. Mm-hmm. mooy taxawal. Mm-hmm. gam bu gi moo gën a yaatu asamaani juróom-ñaar suufi juróom-ñaar. ah. ayul xayoon. wala yahudu hifsuhuma. wa huwa al-aliyyul mooy hadiyu. aji kawe ji. te mooy aji mag ji ayul xayoon. ها ألف لام ميم الله لا إله إلا هو العي القيوم مم حي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه